yéen mbokk yi ginnaaw bu ma leen nuyoo ginnaaw bu ma leen sante ginnaaw bu ma leen ndokkee ci bis bi ginnaaw bu ma baloo ak ma waxtaan ak ay kàddu yoo xam ne waxtu yi xat na waaye dafa mën di ñàkk kàddu yi dana jëm ci yaari bi jëkk ji mooy ndigalal Sëñ Tuubaa yi nga xam ne mooy suñu lépp ñu war koo sàmm ci suñu biir dund di ko rafetal di ko doxee ne mu ko waxee loolu yu ndigal ñun murid yépp ñoo ko bokk ma fàttali leen ko leeral leen julli ji nga xam ne dana di ñëw ñu leen di julli ñun mu bañ a julli ñun dañu koo sëñ dañu ko dul def li ñuy def moo di li ñu sëñ Tuubaa digaloon sëñ Tuubaa toog na fii sax daan toll ci ci bés a Tuubaa la la séenu bu jëkk mu xam la ne man day wenn weer bu yem ci togg diine wenn weer bu yem ci diine déglu leen te sax baa ngay toggoo guma ramalaana nuyoo guma bu ëllëgee la seeni bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo duñ ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi a woor ñu ña ko déggu suñu xëyee koor it ba ci bëccëg dañoo ko yëgee ñëpp dañoo dog ñun waa Tuuba ji cër ca tisbaar lan mboolem lii may wax lenn loo xam ne ëbb na kenn ñëpp ci ndax mboolem ñu fi ne ay seere li may wax ba loola jàllee mu am lu ñu ci sësale di leen di wax ne sax baan bis sàngam ci la bokk di wax ne bis sàngam ci ramalaana la bokk ki nga xam ne ma wax ci alxuraan saaru ramalaana la si untee si alxuraan di ko ko di ko ko xamal ko noppee wax ak yéen maa ngi leen di jox ndigal lu loo xam ne na ngeen ci jàpp te bu ko bay ndigal loolu moo di bu boobaa xool leen seen nopp defal seen bët képp koo ci xam ne gis nga ko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 ku bëgg di am sëriñ dangay nangoo nekk ab taalibe ku ne ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem boo geesoo seen mbooloo ci sa gannaaw looyam attan koo joxe ko la ko attan jox ngir yàlla looyam te ko joxe ngir yàlla boo wëree ëddina ba mu dajale ko gis ko la ko attan jox loolu ko wax wax ne lii ma wax ko seet gis ko jaar ba jàll door ko wax kon nag ci ndigal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 di wax ne dañuy leen di wax ne dañu leen wax lu ñaaw loo xam ne wóor si koo wax koo dëkkal ci biir ñii di ko dégg man loolu lépp leetar yi benn bu ma umb nekk ci benn bu ma réer nekk ci leetar yi nga xam ne sax ñeneen dana ko bind di ko jëm ci kilifa yi di leen wax lu mel noonu loolu sax yëg naa ko waaye nag moom dañ fee nekk ngir bërëb addina ngir addina ci boppam Sëñ Tuubaa dañoo dénkoon ne eh, ku leen bëgg génne ci yàlla yéen delloo leen ci seen bopp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 kon nag bu fekkee rajo bi Sénégal daf ko moomu ko moomatu xëy na bi seer bee ko moom ba ko neex lañ ci wax lu ko neexul ñu bàyyi ko mbaa ku ko mën bu fekkente ni Sénégal moomatu ko daal nanu leer ñu def ko ni rajo ba ca Gindé wala rajo ba ca Mali kenn du jëlee ji suñu baat bi dégg suñu kër déglu leen déglu leen bu fekkee Sénégal da koo moom nag te lu mu murit na jëpp ñu ay sénégalais rajo bi duñu fi jaare si gannaaw tey bu ak magal ñëwati ba ñëw fi bu leneen xewati ba ñëw sëriñ bi maa ngi ni la nga baaxoo saa boo xamante ne bisu ñu war a woor ñëw nga fàttali ko ci jumaa ji adduna yëpp xam ne ci la bisu koor la ku mën na ko lépp lu ajooti ci bis yi nga xam ne mu ndigal li ñu sëñ Tuuba digal ci wàllu diine lu mu doonati du ñëw ko yëgle yëgle gi ci gën a gaaw laa lay wax yoon wa sunu bàyyi kaw taalibe bu nekk am na fi ku ko ku lu ñu war a fee def lu ne la nga ko saaru ci taalibe yi dal loolu digal naa la man ci sama bopp nag man li may def danaa leen ko loola moo di bu fekkee ñi ngay doxee biñ ne ci yàlla sëñ Tuuba di dëgg seen bopp loolu rek la am lu jëriñ. sëriñ bi dañoo sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey